mu ne al fityatu waxambaane waxambaane góor ñu ñuy nuyu xaabil mu assalaamu jaam aleykum yaa nekk seen xaabil ne ko waaleykum salaam yaa jaam nekk seen wa rahmatullahi irmaan yaa wa barakaatu wa baraka ji ah, xaamin nuyu ne nuyu moo gën a matale ba mu boole si nuyu gën a mu ne ah, wax xaamin mu ne kay faal ko da def yaa am yow baay tam amin nako anamen bi xëy na si jàmm alhamdulilah maa ngi sant yàlla kay faal ko na ngeen def yéen man antum yéen yéen ñoom ahadum kenn si kenn si ñoom nax na ñun ab naa ab naa ah, doomi docteur Moussa la amin nako ahlan wàcc si njaw doo salam wàcc wàcc bu yemb wa marhaba ñu yaatal bi leen yaatal abuku seen baay sadiq sama xarit la ay na amukum ana seen baay tax cheikh Moussa kenn si ñoom ne moom maridun aju la moom al an léegi fil mustaswa mu ngi si hôpital xaami na ko safa yàlla na ko saafara allah yàlla tifli kan mooy xale bi allati yaqadu maakum mu ngi ànd ak yéen aadum kenn ci ñoom na ko tuna suñu mbokk la xaami na ko mas mu wàlla mooy turam aadum kenn ci ñoom na ko ismu waa layla mooy layla xaami na ay na baytukum ana seen kër aljëlelu bees bi aadum kenn ci ñoom na ko baytuna suñu kër aljëlelu bees bi xaridun aji jegale minal mataari si minal mu ne minal mataari si aéroport bi haa min na ko antum nak yéen min madra fil madrasati sanawi sanawi bi ah duñ kenn jëngal laa déedéet ndax ñu ngi jaamaa te fi kulliya tabib bi mu ngi si kulliya docteur mu ne ibrahim ibrahim fi kulliyati shariati mu ngi si kulliya sharia wa yusuf yusuf fi ah kulli ci kulli bu fooy jàngee comme ay ingé fooy jàngee yooyu kulli ah, kulli ah, ah bi mooy kulli boo jàngee docteur charia mooy yooyu jàngu charia yooyu mu ne ah na ko man zaalikal fata kan mooy waxambaane si allazi xam ne fii sayaaratikum fii sayaaratikum mu ngi oto maa mun na ko moom zamiili sama morom la sama àndandoo xam ne min ayna huwa moom fa la jógee maam na woo min Angleterre mooy jóge Angleterre mas mooy turam no ismu turam William mooy William a muslim ndax jullit woo moom laa dere woo la abu baayam ustaaz yi mooy ustaaz ismu turam docteur Edward mooy docteur Edward mu ne ko yahdihum allah jubal il islam jëm si islam ñu ñaanal leen mu ne ko haa amin na ko azhabtum ndax dem ngeen mustasfa jëm si hôpital li ziyaara tammi ngir ziyaara ngir ziyaara seen baay tex bi alyawma dem Yusuf na ko naam waaw zaab na dem nañ ne ko tamaal li ay jéemantu la yaay tontu li ajib tontu na asati aadi si mooy li ñu loolu xaamid di laaj ah, xamba day loolu ngay tontu ay na baytukum ana seen kër man rabbukum kan mooy seen borom maa luxatukum la mooy seen lang am yéen ñi ko laaj ko waaye yaa tontu ayna mudarrisatukum madrasatukum ana seen école a antum na seen muslimin ay jullit ngeen afi baytikum ana nekk na seen seen nekk na seen kër yaa koy tontu adiqatun zaar bi ay ndokk ndax am ngeen sa yaroon oto ay jàng mudarrisatukum ana seen jàngalekat a antum na seen mudarrisin ay jàngalekat ngeen iqra jàngal waxtu ta nga bind mu ne nax na ñun muslimun ay jullit leen allah yàlla rabbuna moo suñu borom wal islam islam diina moo suñu diine wa nabi muhammad muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasuluna moo suñu wal qur'aan al qur'aan al karim bu téere bi kitaabu naa mooy suñu téere wal kaabaru kaaba xiblatu naa mooy suñu xibla arabiyatu lang arab lugatu naa mooy suñu langa arabiya mooy langa ay na mudarrisukum ana seen jàngalekat yaa ixwaan yéen mbokk yi mooy xaraja génn al aan léegi parce que jógee si classe bi wa mu dem ilal mudir si directeur bi fi ay chaarin si benn mbedd baytukum eh, fi ay chaarin si benn mbedd la nekk baytukum seen kër mu ne baytu naa suñu kër fi chaarin si mbedd allazi bi xawantal amaamal maxkamate mu ngi si kanam attekaay mu ngi si kanam tribunal bi mun abuna suñu baay sadiqo amakum seen xaritu seen xaritu baay tëxala mun aantum nax yéen mu dari suñu ay jàngalekat ngeen laa naxam ñeen atibaan ay docteur leen aantum nax yéen abnaaw mudir doom directeur bi ngeen laa naxam ñun xafadatu ay setam lañ madrasatuna suñu école madrasatuna suñu école kabiratun aji mag la wa madrasatukum seen école nag saxiratun aji ndaw la mu ne lana ñeel nañu hadiqatun hadiqatun ab jardin jamilatun bu rafet fi tilkal xarit yi si dëkk bële mu ne axuna suñu mbokk taalibun taalibe fi kulliyati tibbi ci kulliya docteur antum nag yéen atibaan ay docteur ngeen baaduna ñeen ñi atibaan ay docteur lañ wa na ñeen ñi wa hindusuna ay ingénieur lañ allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom wa rabbukum te mooy seen borom ay na sahabtum fa ngeen dem yaa axwaan yéen zahab naa dem ne mu ne ila suuqi jëm si marché bi mu adif laafalal alif laa falal al asmaa al aatiya tur yi di dëkk ila damair jëm si demir kamaa woo comme ni nga nekk moo doon di leeral fil bayt si bayt bi si fil misaal si misaal bi mu ne baytun kër baytukum seen kër baytuna suñu kër léegi noonu ngay defee yii nii amun baytëx waxal seen baytëx suñu baytëx madrasatun école waxal seen école suñu eh, suñu suñu école luxatun lang waxal seen lang suñu lang abun bay waxal seen ah seen ah, baay suñu baay umun yaay waxal seen yaay suñu yaay sadiqun xarit waxal seen xarit waxal seen mbokk bu jigéen suñu mbokk bu jigéen ah, waxal seen diine suñu diine aqun mbokk waxal seen mbokk suñu jàngal almis ah, ay yow ay yowun benn bis haza bii la ban jusu la ñàkk tey mu ne bi haza li yowmul sabti mooy bisu samedi ay shahrin ban weer haza bi haza rajab weeru rajab la ay kulliyatin ban kulliya hazi bi hazi li kulliyatu tijar kulliya ay madrasatin ci men école ang danga nekk yow mu ne ana man fil madrasati mutawassiti maa ngi bu digg dóomam bi ay baladi si ban dëkk ang danga nekk ante yow mm, yaa waxtu yow sama mbokk ana man min ni yunaan maa ngi yunaan mu William William mu ne Edward Edward London London Yaris Paris Paris Pakistan Pakistan Istanbul Istanbul Ibrahim Ibrahim Ismaila Ismaila Ishaqa Ishaqa Yanquba Yanquba Ayuba Suleyman Daawuda Yunus Idrisa Jibril Jibril Jibril Jibrailu Mikailu mun iqara jàngal al misaal misaal su ma awil topp nga changé al jumal al aatee yi di dikk mislahu comme moom misaal yi yaa nga jàng waaye nga changé jumla yi comme ni ñu ko misaalee nii anta yow dahabta dem nga ilal jëm si école bi antum yéen dahabtum dem ngeen ilal madrasa jëm si école bi léegi anta yow xarajta génn nga min al fasli jógee bi waxal yéen génn ngeen jógee si classe bi anta yow jalasta toog nga fil fasli si biir classe bi waxal yéen ah, toog ngeen fil fan si biir classe bi mu ne ayna zahabta fan nga demoon yaa xew sama mbokk waxal fan ngeen demoon yaa ixwaani yéen sama mbokk yi góor limaasa xarajta la moo tax nga génn minal fas jóge si classe bi yaa war a dayoo xale bi limaasa waxal la moo tax ngeen génn jóge si classe bi yéen xale yi yaa awlaad firi sët ibnu ibnu mooy sët nag suñ ko xam mooy ibnul ibnu mooy doomi doom comme sa doom doomam ko mooy sët aw ibnul bint wala doomu doom bu jigéen mooy wala sa sa ah, sa doom bu jigéen doomam mu ne jamono bi xafadatun mooy ay sët al kulliye mooy kulli al kulliye jamono bi kulliyaatun ay kulliye kulliyatu tibbi kulliyatu docteur kulliyatu charia kulliyatu charia kulliyatu al mahkamatu mooy tribunal al mooy mbokk jamono bi ixwatun ay mbokk wala nga muy ahlan waje sin jabar wassalam wato yato yambo maraba ne yatan aliyunan aliyunan nasrani nasran jamo nasara ay nasra albaladu mooy dëkk jamo bi bilaadun ay dëkk mu ne darsul xaamisa darsu juróomeel bi xaamisa sa darsu fukk ak juróomeel bi alfatayaat xam nga dara mu góor ba tey mu si jamo isaan jamo jigéen jànq yi assalaamu jàmm aleykum yàlla nekk seen wa rahmatullahi yërmande yàlla wa barakaatu ak barkeem zeynam nag wa aleykum salaam yàlla na jàmm nekk seen wa rahmatullahi yërmande yàlla wa barakaatu ak barkeem man antum yéen yéene ñan yaa axawaatu yéen mbokki jigéen yi na kenn si ñoom nag ndax ñun banaatu Cheikh Abbas doomi Cheikh Cheikh Abbas lañ ah, zeynam nag ahlan wàcce seen jabar wasala bu yom wa marhaba ñu ngi lay yaatal umma kunna seen yaay ustazati sama ustaz la kay baalu naka mbir nam def mun ixdaaw na kenn koy wooye moom bi xeyr mu si jàmm alhamdulilah maa ngi sant yàlla na ko ahiya nag moom alaan ahiya nag moom alaan léegi ay na hiya nag anam moom alaan isaan mu na ko ixdaaw eh, riyaad mi ngi riyaad mata saabal kañ dem ixdaaw na kenn ci ñoom na zahaba man zahaba dem na ma ànd ak moom Iran kenn zahaba dem na qabla usbuin njëkk semaine Zeynab ne ko man man zahaba kan moo dem ma ànd ak moom idaahu na kenn si ñoom na ko zahaba dem na ma ànd mo moom axuna suñu mbokk Ibrahim Ibrahim Zeynab ne ko kayfa haalukum na ngeen def mono yéen idaahu na kenn si ñoom na ko naxnu ñun bi xeer ñun ci jàmm alhamdulilah ñu ngi sant yàlla jëlee ko fi ay madrasa ci benn école antu na ngeen jàng ngeen nekk daanu kedd ci yom na ko naan ngeen fi madrasa mu du wasir ñu jekku digg doomu mata ixba ixtibaaru kunna daa suñu ko ba baara soxla gannaaw weer la jëlee na ndax dem ngeen ilal madrasati jëm si école bi ilal madrasati jëm si école bi al yawma tey mu ne eh, daanu kenn si ñoom na ko ndax nu ñin zaab naa dem nañ war a jax naa dellu nañ tamaarin li ay jéemantul mu ne ko ah, ah, tontal ayna ummu kunna ana seen yaay ayna baytu kunna ana seen kër ayna aqu kunna ana seen mbokk mu ne ayna madrasatu kunna ana seen école azahabtunna ndax dem ngeen el madrasa jëm école al yawma tey anis jigéen na al mubtada mubtada fi kulli jumlatin si bépp jumla alaati yi dikk baal yi di ñëw ni di gaal góor yaa ngay na xeen tullaabun ay taalibe ngeen mu jox si misaal antuna naka yéen taalibaatun ay taalibe ngeen yi jigéen léegi yaay yi si des di yaakaar def jigéenam a antum naka yéen mudarrisuna ay jàngalekat ngeen waxal naka yéen mudarri ngeen jigéen kon ay jàngalekat ngeen nga def ko jigéen a antum naka ay docteur ngeen waxal naka yéen ay docteur nga def ko jigéen a antum naka yéen ixwatun ay mbokk ngeen xaamin xaamin ixwatu xaamin mbokk xaamin ngeen a antum naka ay jullit ngeen antum nag yéen amaamu mahmud baytixu mahmud ngeen antum nag yéen u mudiri yéen doomu directeur bi antum nag yéen abau tullaab yéen bàyyi taalibe bi mu ne awi changer damir damir fi kulli jum fi kulli si képp minal jumlati si jumla yi alaati yi di kama on comme nañ xewen dun mu waddaw nuñ leerale fil misaal yi mu ne misaal ay na baytukum ana seen kër yaa axwaat yéen mbokk yi ay na baytukum ana jigéen ñi nu ngay defee yi ay na ana seen mbokk yaa ixwaani yéen sama yéen mbokk mata ixtibaar kañ nga seen kañ ngeen ko mbaa mu ne aza ndax kii amukum sen baay tëx la yaa ixwaan yéen mbokk yi abaytukum ndax seen kër xaribun aji jege la mu ne ya ixwaan yéen mbokk yi fii ay chan si benn weer ixtibaarku ngeen kompo yaa ixwaan yéen mbokk yi mu ne daa tegal fi amaakin xaalati si barab wet yi fi maa yel si dikk damirin demin munaasibun bu dëppoo lil mot xaata bi ñëkk jàkkaarloo mooy anta antum anti antun yii nii bu si nekk am na bu mu léegi comme ma joxol benn a ah, muslimun ndax anta ndax yow muslimun julli nga léegi noonu ngay defee yëpp bu nekk bu fekkee mbooloo mu góor la antum bu fekkee mbooloo mu jigéen la antu na bu fekkee kenn ku góor antu bu fekkee kenn ku góor ku nga jàkka kenn ku jigéen ki nga ya mu ne a ah, a ah, muslimun ndax julli na mu si anta mu ne amaridun a ah, ah, mari oh, neexul nax yow mari dana ju feebar nga ah ndax yéen ay docteur leen ndax ah, ndax yéen tujjaaru ay commerçant leen mu ne ndax yéen bintu mudarris doomu jàngalekat ndax yow bintu mudarris doomu jàngalekat ndax yéen aqwaatu abbasin mbokk abbasin naqin tullaabun ay taalibe ngeen mu ne tegal fi amaakin xaali si baro bi weti fi jumlat aati si jumla yi dégg damirun muttasil damirun bi jokk lil muqaatab bi nekk jàkkaarloo ka wala kum wala ka wala bu nekk am na bu am na bu bu mu ànd nga jàkkaarloo euh, euh, nga ne ka nga xay wax bu fekkee ki kenn mbooloom góor ku mbooloom jigéen ku ne ay na bay ay na bayta ana kër mbokki yéen mbokki ay na baytu kum nga yaa mu ne haza naqli haza naqli kitaabu téere yaa xamil yow xamil yaa si teg bu muy aji rafet la yaa layla ila man abu kan mun seen baay yaa ixwaan yaa axwaat mbokki jigéen mu ne mas mu muy tur ya xi yow sama mbokk mas mu muy tur sa ya xti yow sama mbokk bu jigéen mu ne ko a ummu a um a ummu ndax fil kër gi ma asma ma asma wala mooy seen tur ya ixwaan yéen mbokk yi bu nekk yaa si teg bu daan tegal fi amaakinil xaaliyati si barab yu wetu fii ma si dikk damin damin munaasiban bu dëppoo lil mutakallimi ñoo koy wax ana mooy man ndax nu ñun yii nii yaa teg ana wala ndax nu mooy damin mutakallim kiy wax muslimun julit muslimun ay julit muslimatun julit bu jigéen muslimatun ay julit ñu jigéen banaatul mudir doomu directeur ibnul mudarris doomu jàngalkat bi tullaab ay taalibe maridatun ku feebar mun yooyu yaa koy mu ne ki xarajangal waktub ta nga bind hadaba dem na abi sama bàyyi xaayira te jëm xaayira qabla usbuin njëkk ay njëkk semaine ay semaine mun mu ne mata xarajta kañ nga génn mi pas jógee si classe bi yaa Muhammad yow Muhammad xarajtu génn naa ba'da darsi gannaaw darsi wi mu ne zahabta zahab zahabat zahabtu dem naa el masjid yam si jàkka ji xablal azan njëkk nodd mata zahaba kañ la dem xammuko sabaata xammuki sabaata ila riyad jëm riyad ya amin yo amina mu ne dem na xabla shahr njëkk julli gi zahabta dem nga ilal mataam jëm si restaurant bi la zahabtu dem naa baada salaati gannaaw woon julli pare mu ne ay la zahabta fa dem yaa xiyee sama ay na zaabtum fa ngeen demoon yaa uxti yow ay na zaabtum fa na zaabtum na yaa axwaat yéen samay mbokk yi jigéen mu ne dem naa ndax ñu ñun zaab naa dem nañ yooyu ay demoon alkalimaatu jadiid baatu bees yi mu ne qabla mu ndëkk baada gannaaw kayfa naka mata kañ usbuur semaine shahru weer al azar nodu asaadu julli raja dellu na ixtibaarun compo dama ad-damaa'ir munfasila damir munfasila bu fekkee ah, mooy mufrad yi ñeen mufrad mufrad yi yëpp mooy ku fi nekk ku huwa moom taalibun taaliba moom mu góor mu fi nekkul hiya moom taalibatun taaliba bu jigéen moom jigéen mu fi nekkul anti anta yow taalibun taalibe anti yow taalibatun taalibe bu jigéen ana man taalibu taalibe la ana man taalibatun taalibe la hum ñoom tullaabul ay taalibe mooy mbooloo mu góor fi nekkul hunna ñoom taalibatul ay taalibe yi jigéen lañ mooy mbooloo mu jigéen mu fi nekkul an antum yéen tullaabul ay taalibe nga mooy mu góor nga jàkkarloo antum na yéen taalibaat tullaabun ay taalibe nga xam ne mbooloo mu jigéen mi ngi jàkkaarloo am tudd na nax na ñun tullaabun ay taalibe leen nax na ñun taalibaatun ay taalibe leen kon loolu moo leen darsu tay bi si luxatul arabiya mooy suñu darsu neuvième bi bi di ñëw dañ firi euh, dixième bi lu si jub si yàlla la lu si dëng suñ gàtt xam-xam la ak suñ néew gëstu in uridu illa al islaha mastatant wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu